wal Muhammad wala Muhammad alkaani bi ni ma sukkiri diwaa te sikk dikk na yi ci tànk yi toog ak dënn bi diggante tànk yi ak dënn bi lañ toog kii rabu ko jàpp moo ko téye moo ko moo ko mu mel nii mu mel waaye mageewul nii de mu mel yaram mu mel ay atam egg mënul taxawal bopp allahu la ilaha illa huwa alxayyum xayyum la taxzuhu sinatun wala nawm lahu maa fi samawati wa maa fi l-ard man za llazi yashfa'u indahu illa bismihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhituna bi ما شاء وسع كرسيه سماوات والارض ولا يهود حفظهما ولا يهود حفظهما ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم سلام على النوح في العالمين ان كذلك نجزي المحسنين سلام قول من رب رحيم اللهم صل على بدر سلام اللهم صل على نور سلام اللهم صل على فتح في جميلنا doxal doxal doxal dama dem ndox ci suuf bi di sangu doxal jox ko tuuti mu naan doxal ñëwal tuuti ñii dañu jël Good. Ece? Ece? Ece? Ayça. Ayça. Ayça. noo tudd noo tudd noo tudd الله من الشيطان الرجيم السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني السلام عليكم جني يا أسرع جني ريلاسي جني tarihi jinne bayiru jinne batinu batinu jinne fal yaati jinne fal baati yow lay waxal eh dama ne ki nga topp mënoo koo bàyyi xanaa ah ah ah yow lay waxal asalaamaaleykum jinne asalaamaaleykum jinne asalaamaaleykum jinne yaa sunu huruf jinne yaa sunu huruf yi attaqué yaa sunu huruf bakali bakali bakali jinne bakali makali makali jinne makali makali jinne yor yor jeer salamun xawla min rabbin rahimin allahumma salli ala atik salam allahumma salli ala nur salam allahumma salli ala تغفر لنا اللهم صل على الله دار سلام على النوح في العالمين انك ذلك نجزي المحسنين سلام قولا من ربنا ko ki nga topp mënoo ko bàyyi ba mu ko waxal ci kaw. kii nga topp mënoo ko bàyyi wala mënoo ko ah. lan moo tax nga téye sa tànk yi fee bañ na doo génn parce que yaa taxaw fee tax loolu ah ah lan moo tax nga taxaw fii laa bañ na doo génn tax nga téye tànk yi kebel ko tax loolu ah ah ah mun nga génn wala mënoo ko ah ah li nga ne yow ñaata at nga am ah waxal ci kaw cent onze gaal tuuti wàcc gaal tuuti foo toll man mag lay gis ci diggante biir bi nga nekk fii ne ak tànk yi wàcce ci diggante biir bi ak tànk yi nga ne wàccal ne wàccal wàccal nga bàyyi xale bu nelaw wala doo am jàmm wàcc bàyyi ko nelaw wala doo jàmm si ku hmm. kay doom yow sama xam yàgg néew de nag su ma ñëwee nga xam. yow lu tax nga dëgër bopp xale bi nga topp. bul bàyyi ci moom li ne ci moom yëpp dindi ko li ci moom yëpp yóbbaale ko bopp bii métteeg biir bii métteeg ak naq bi yi ngay def yëpp yóbbaale ko nga bàyyi ko mu nalaw gaal tuuti. bul bàyyi ci moom dara dara boo bàyyi ci moom. xam nga li ci gën a doy waar mooy ñii ku ñu jàpp ay xeeti feebar yi def ci yooyu fay après nit kuy dund ak nit ni mu mel ñetti xeebar feebar xajul ci moom bu ko yëpp attaqué rey amul sax ma dem te ñëw moo tax boo ci faj li mu yób li mu ne ci moom yëpp da koy yóbbaale gaawal tuuti da nga war a gaaw gaawal bari na ñuy wax raf mais ñi mun sax laal dafa bari ko fay ñi mun koo sax laal parce que ñii koo ci jëflanteel ci bëccëg gi guddi gi da nga koy dixaat da lay attaqué. bu la waral léeg-léeg ne la dem naa fii ñu bañ ma nangam nangam kooku dama koo rey boo kese kese munu ci dara ñii kese kese munu ci dara parce que bu la attaqué heure ba muy jug booba yaa ngi nelaw moom du dox bëccëg guddi rek ci lay dooleem di ëppee te yow booba yaa ngi nelaw. gaal tuuti. moo bëgg nga gaaw tuuti dafa yeex dafa yeex dafa yeex gaawal gaawal gaawal gaawal dama bëgg nga gaaw tuuti ayca ayca ayca wàccal ci tànk bi yaa ngi ci tànk bi wàccal wàcc ci tànk son noo tudd yow wëlbati ko nga wëlbati sa tawfeex bi nga demoon wëlbati ko nii tawfeex la ndax boo ko demoon du baax boo continué woon dem du baax nii nii nii nga ñëw defar seen am boo pare door a dellu moo gën parce que yow dañ la topp moo tax dañ la topp bu siwee yàq dëkk noonu yi nëpp woon loolu fan la da nga sol ci nit ki ci tànk yi wàcc gaal tuuti yow rek ñu bëgg a gaal tuuti gaal tuuti wàcc wàcc ci tànk yi wàcc wàcc wàcc ay ca wàcc wàcc ay ca gaal tuuti gaal tuuti ci naq bi wàccal wàcc wàcc fekk demoo duma la ba wàcc ay ca ay ca ay ca ay ca jinne ay ca jinne sira beter sara beter beter beter ne mer nel nem nel mer sira berber sara berber berber diis berber loccu wàccal ci nit ki ay ca wàcc ci tànk yi wàcc wàcc wàcc wàcc ay ca ay ca ay ca gaal tuuti dem na gaaw tuuti yaa ngi ci tànk yi ba tey génn góode wàcc nga ci biir waaye yaa ngi ci tànk yi gaal tuuti gaawal set na set na set na set ba nga jug ba nga faatu fatt ba nga faatu gaal tuuti yow lañuy ñuy xaar gaal tuuti na set na set ecci dañuy gum set ci yow da ngay gis yaram bi day set buy te bu la attaqué rek yaram bi day tàng bu lay attaqué rek yaram bi tàng waaye bu tëjee da ngay day bàyyi yaram bi day set boo jàngee jël bu dégg loolu la dafa waaw nu mu tudd ana ki maal nu mu tudd bàyyi boobu tuuti mu mu faral di bind